wa fàttalikul isibtalaa kera ba nga xamee ne nattu woon na ibrahima ibrahim ku ko nattu rabbuhu boromam loolu la ñu tuddee taqdimul mafauli ala alfail yàlla moo nattu kum nattu ibrahima kon complément bi moo war na mujj waaye yàlla waxee ko nii ndax wax ji daa am fulla wax ji daa am fulla wa isibtalaa nattu woon na daa di fab nattu ba teg ibrahima ba noppi nag door a wax ci ko nattu ku nattu rabbuhu boromam bi kalimaatin ci ay baat fa atammahunna mu matal leen ibrahim alayhi salaam suñu borom daf koy nattu daf koy examiner ndax yàlla dafa bëgg koo xam ne daf koy fal imaaman linnaasi mu woote benn concours moom yàlla kenn admiwut ba mu des Ibrahim concours la woote moom yàlla international ñëpp yonent yeeg wàllu yeeg xutbu yeeg aqtaab yeeg ustaas yeeg kul daal di koy jox nag cinq questions wala épreuve bu Ibrahima admee wala boo ku admé ci concours bi rek yaay nekk imaaman linnaasi Ibrahima daa dugg ci salle bi gaa yi dugg benn yàlla ne ko damaa bëgg nga taqali ko sa nit ñi sa mbokk yi sa papa sa yaay te ma tax ndax ay yéefar lañ Ibrahima ne ko d'accord naa daal di jël ay bagaasam dem yàlla na ko cinq boobu moom at na nga ci cinq sur cinq benn bu ñaareel ba yàlla yebal ko ci Namruus mu nekk ku bandite réew waxanteeg yàlla Ibrahima a ngi toog ne ko yàllaay sama borom yàlla moom suuf si moo xam li fi nekk mu ne ko ah man duma yàlla Ibrahima ne ko doo yàlla mu ne ko lu yàlla yi def te mënuma ko mu ne ko yàlla ay rey ak dekkal na mu ne loolu rek laa man loolu rek laa man daal di jàpp benn waaye cor baat ba ne reyuma mu ne ah kay mu jàpp keneen ne ko yow danaa la rey ba ñëpp d'accord mu ne ko baal naa la dundaluma Ibrahima xam ne waa jaa ngi tappale te tappale kat du sori mu ne ko jërëjëf yàlla mu naa mu ne ko bu subaa sept heures vingt huit mu naa mu ne ko mooy indi jant mu jóge fii comme yow nag wu jëm nga bu subaa ba la ko indi fii rek na nga ko indi fii Namroos commencé ñaq yàlla ne Ibrahima mu naa mu labay ko mu ne ko cinq cinq Ibrahima laf dix sur dix bu ñetteel bi Ibrahima gëm yàlla ca réew ma kenn gëmut ñu gas pax mu toll ni yàkka ji taal ko ba mu yàññi taxawal Ibrahima ci bunt ba ne ko ci biir weddil yàlla mbaa nga dugg mu ne dugg ci biir pax mi lakk ba def dóom moo ma gënal weddi yàlla yàlla ne jël ñu fab Ibrahima yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawar woo puy yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahima yow sawara wi seddal waaye nag bul galaase na nga sedd bu yem rek damay ndax mag la daa ragal sedd sawara wa sedd lam sedd Ibrahima jóg di faxat sikki mag di yëlëb ay yére yàlla ne ko cinq waaw ñaata quinze bu ñeenteel bi yàlla ne ko damaa bëgg ku ma sancal makka ndax yonent bi muy mujj a yónni fa lay feeñee kon nag demal nga sanc ko Ibrahima takki bagaasam xëy fab soxna si mu gën a bëgg soxna yi muy muy muy ñaareel bi séet bi te séet baa ngi am doom ju bees mu boole feedback yëpp yóbbu makka teg fa koo may bàyyil mu ne ko yàlla daal di takk bagage ñibbi yàlla na ko cinq ñaata tey mu neex de moom daal épreuve yëpp ñu la ko jàppe beneen bi Ibrahima bi mu amee doom Ismaayil yàlla gis fu mu ko yor rek xam nga nit bu amee doom rek suñ Murtala day wax ne ku am doom dof naan yë waaw di wax ak dof waaw yàlla gis loolu daa ne kii bëgg na doom de mbaa doom jur jël sama place waay Ibrahima mu ne labbay ko mu ne ko rendi ko mu ne ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci baat ba yàlla na ko cinq xanaa am na vingt cinq sur vingt cinq wala boog bu doon kaan nga ne vingt sur vingt ah yàlla nag ne ko xaaral boo gisee mu dugal la ci salle bi ci concours bi damaa bëggoon imam linnaasi moo tax xaala mu ne ko inni man yàlla bés naka tey jaa'iluka def naa la linnaasi ngir nit ñëpp imaaman nga nekk seen ilimaan tey mu ne ah mu ne ko def naa la ko léegi nag kuñ fal da ngay discours Ibrahima def discours ouverture am daal di proposé yàlla benn affaire xaala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sët bu ma am doom ju ma am nga def ko imaaman linnaasi yàlla ne ko nga ne Ibrahima la wax mu ne damaa bëgg doom ju ma am sët bu ma am nga def ko imaaman linnaasi xaala yàlla ne ko laa yanaalu laa yanaalu du am ahdiya sama ndomba tànk azzalimina tooñkat yi du ma fal kuy tooñ ah du ma fal kuy tooñ de fi nga jaar daal ku fi jaar ak man ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow waaye man yàlla du ma fekk ku am trois sur vingt ma koy fal mukk bu sànnee carte daal bu ñëpp sànnee ma fal la rek mu jeex du ma négocier nguur ah fii ñi jàngal xoraan war nañ ko jàng bu baax tey bu ngeen amoon benn mbootaay teg ma ci kanam may lekk xaalis bu ngeen bëggee folli day am ñu jóg ne yàllaa ko fi teg walla ko fi tega ah ñu ne nañ muñ boog ba mu folliku yàlla ne du folliku mukk teguma ko fi yéene ko fi teg waaw loolu la olof di wax yàlla ko fi teg waaw ko fi tegoon firaaw na yàlla Muusa ndax bu toogoon ne yàlla ko fi teg rek firaaw dana daanu mukk daa dem songo labal ko ca bàyyi xol suuf lu am solo la kon ndiggante soosu noonu la yàllay nattoo jaamam pour yéege ko kenn ku nekk ñuy noonu la lay nattoo koor gi ci la bokk yàlla ñu yàlla jàppale way fàttalikul kere ba nga xamee ne jaal nal bayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas masaabatan linnaas muy rawukaayu nit ñi muy làqutukaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqisu te it na ngeen jàppee min maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkk ci yéen bu tawaafee ba noppi na fa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi faatiha ak kaafiruun rakka ñaar bi faatiha ak ixlaas waaw naar yi nag naroon nañ koo yàq maqaam Ibrahima dajji ko xam ngeen bu ngeen di gis nañu photo kaaba gi di ko gis léegi bokkut am na yu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon dindi maqaamu Ibrahima ginnaaw yàlla Cheikh al Islam Haaj Ibrahima Ñas moo tee ñu dindi ko suñ Cheikh Ibrahima Ñas mii tabarkalla ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggoon a maase rek at yi weesu bëggoon nañoo maasale baqiya ba defar plan ba noppi xaw ma nag bàyyi nañ comme démb parce que démb démb la naar yi deful muy dara parce que nee nañ yépp ay shirk la ki bidaa démb te boo fàttee sa démb day tax doo mën a xam tey te boo xamul tey defar ëllëg jafe la fàtte sa démb day tax doo xam tey ñàkk a xam tey day tax defar sa ëllëg jafe la loolu mooy li ñu tuddee changement tabarkal ma dem de waayit naa kóllërante woon nañu ila ibrahima ca ibrahim wa ismaila ak doomam ji ñuy wax ismail am tahira ne leen seetal leen yéen ñaar baytiya sama néeg bi man yàlla li taifiina ngir ñu koy tawaaf wala aakifiina ak ñi fiy dëkk war rukaai ak ñi fiy rukoo as sujud tey sujud na ngeen defar kaar ba mu set ngir ñi fiy tawaaf si ñi fiy dëkk si ñi fiy julli si kon looloo tax ñu koy def moom it moo tax jàkka ba muy doxar roolam ab jullit daawul dem di jëli di jëli hôtel da ngay julli gee rek fab sa bagage géganoo nelaw ba asalaatu xaymun na mi nga jóg dox say soxla ba jàkkay jàkka loolu moo amul al aakifin ñëw fanaan ci jàkka ji tëdd fee gaa yi tëdd fee ñee tëdd fee asalaatu xaymun na nga jóg jàpp julli ba noppi doxi say soxla bu ngoonee nga ñibbi siwaat paa yi koy reer yi te amoo koo yóbbaale yóbbu kenn ah booy reer yi yóbbu kenn sëñ bi kaa ñu reer yi kii ne kaa kenn ku ne jël kenn ndax ku jëli yëpp alko jële ñëpp du baax ci yow wa is qaala ibrahimu fàttalikul keroog ba ibrahima waxee rabbi yow sama borom ijaal maa ngi lay ñaan yàlla na nga def haada dëkk bii baladan amina muy dëkk bu am sécurité ismaila mooy ibrahima mooy ñaan warsuq yàlla na nga wërsëgal ahlahu ñi dëkke dëkk bi mina samaraati ci meññit ismaila naan amin ismaila naan amin ñaara ngoog yàlla na dëkk bi am sécurité yàlla na am wërsëg gis nga ñaar yooyu mooy mooy facteur développement waaw al bu'dul iqtisadi mooy ñaar yooyu rek al amnu wa rizq mooy loo mën a mën a mën a liggéey bu amul sécurité doo liggéey super yi tey ji bi ñu fi yenoo benn xale tey seen liggéey xaw naa yàqu dóor nañ leen i xeer ba ñii teggi jaar lasana ñii teggi jaar burgi ba ñii teggi jaar yi feneen yow mi nga xam ne da ngay da ngay sàmm ka umutadi boo fi amoon am xar tey jënd ko soixante quinze mille yeew ko guddi moor ko ñëw ne ko coppet kañ ngay am ah liggéey ba weer dee nga def ko sa poos di indi kër gi pour jënd ndogu benn waay ne nii sa poos ca biir gi ba neb lañ set xotee ne ko coppet nga ñëw ci kër gi ak lu yamu neen kañ ngay am waaw kañ ngay am baax na nag parce que buñ la ko defee dootuñu la ko def c'est bon man de bañ ma ko defee walaay ndeysaan dootuñu ma ko def waaye nag safoon na lool de parce que falaa miire ba ci kër gi waaw ndeysaan suma suma góor yu baax yi ñoo ameen commissaire bi léeg-léeg benn waaye bu wax ma dara ba ma am lu ëpp lan jëloon waaye daal ah xam naa danañ ma jëlalaat de waaye danañ yeex de waaye yooyu su dee am kañ la économique bi di dox du dox wala nga liggéey dara ba mu ne coob benn waay ñëw leb ko te du fay moo tax gis nga Ibrahim baladan aminan warsuqa ahlahu boo demee Màkka loo fa réer le boo ko gisul rek gana ko jël boo ko gisul rek gana ko jël wala ngay aji ñu tafu la gana ko jël tabarkalla kon aminan warzuq ahlahu min asamara waaye nag Ibrahima wax ci ñaan gi ne man amana minhum ku gëm ci ñoom billahi yàlla wal yawmil axir ak bis mujj ba ku gëm àllaaxira daal na nga ko war sa gën xaale yàlla na ko du ma def loolu Ibrahima proposé woon nga ma keroog ba nga amee bëgg maa proposé waat tey jii du ma ko def ah man daal may wërsëgal damay wërsëgal ku gëm wa man kafara ak ku weddi moo tax mille francs ci loxob yéefar loxob jullit fële lay nekk tabarkalla naka noonu neexitu lekk ci yóoru tayit buy lekk ceeb comme sa ceeb rek bu nelaw jotee noonu waaye nag ki weddi fa umattiuhu dama koy bànneexal ci àdduna xalilan tuuti suma ginnaaw ga astarruhu ma lor ko ila azabi naar jëme ko ci mbugalum sawara wa bi'sal masir mujj gu naqaree nga noonu yal nañu ci yàlla musal wa is fàttalikul kera ba nga xamee ne yarfa'u mu ngay yëkkati ibrahimu ibrahim alqawaayida piya mooli mooli kaaba ga minal bayti ca kaaba ga moom ba mu fekkee ñu tabax kaaba gi waa jurhum tabaxaat ko bi mu ñëwee da koo tabaxaat bi yonent bi ñëwee tabaxaat ko moom mi ngi ni tabaxaat wa ismailu ak ismail ña nga ñaan nag rabbana yow suñu borom taqabbal minna yàlla nag ñu nangul innaka yow yàlla anta samiu yow ay aji dégg ci ñaan al alim yaa xam li gën ci ñun rabbana ay yow suñu borom wajaal naa yàlla na nga ñu def muslimay na làkk ñu gëm la man mii ak sama doom ji ismail wa min zurriyatina yàlla na nga ko defal suñuy doom ummatan nga def ci wu xeet muslimatan wu gëm yàlla làkk ñeel la maanaam muslimatan làkk wala wammatul wa arinaa yàlla yàlla na nga ñu wan manaasikana niñ la war a jaamoo wa tuba alaynaa yàlla yàlla na nga ñu baal innaka ndaxte yow yàlla anta tawaabu yoway baalekat bi arrahim yoway aji yërëmi ji yàlla ñu yàlla baal te yërëm ñu rabbana ay yow suñu borom wa baas ñu ngi lay ñaan yàlla na nga yónni fiihim ci suñ doom yi rasulan yónent minhum bu juddoo ci seen biir sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne man maay ñaanuk ibrahim maay ñaanuk ibrahim tabarkal daawatu ibrahim wa nubuwatu isa wa busharatu wa nubuwatu musa wa busharatu isa tabarkal rabbana yow suñu borom wa baxas yàlla na nga yónni fiihim ci seen biir rasulan yonent minhum bu jóge ci seen biir waaw rasulan minhum ndax bu yàlla yónnee yonent jaambur dégganteeg moom day jafe bu yàlla yónnee woon benn benn chinois mu ñëw màkk di leen daawa day jafe lool ñëw naan leen yàlla neen naan leen ci caawan e ceew duñ ko topp mukk wallaay ndeysaan ah wala mu yónni fu yónni yónnente bu olof mu dem naan dama ne naari duñ ko dégg wa baas rasul fihim rasulan minhum rasulan minhum lu am solo la it ci wàllu képp kuy waxtaan aku nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabarkal yàlla du nit yadlu alayhim mu man leen a jàngal ayatika sa aaya ci seenu làkk ci seenu làkk wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani xawmihi waaw moo tax léeg-léeg am naar jóge fii ca Màkka ñëw di waaraate fii day jafe waaw lay njëkk a dawloo nit ñi rek mooy mooy muuraay ba waaw parce que fii li ñu xam moom mooy jigéen mooy muuru ngeen baal ma lay njëkk a dawloo nit ñi mooy muuraay ba waaw ko defee nit ñi commencé daw gi nag doo dem bàyyi ko fii mais li muy wax moo dul dugg sa xol bi bu ngeen ko xamee bu ngeen ko xamul nag parce que culture culture li juddoo ci yow ngay gën a xam culture bu juddoowul ci yow ba tax doom joo gis yaayam a koy gën a bëgg baayam parce que ci moom la juddoo direct amul sikki sàkk lu am solo la wa ma arsalna min rasul illa bi lisaani xawmihi jeneen aaya la ju ñëw ci lii tabarkal wa yuallimuhum noonu la de wa yuallimuhum mu di leen jàngal alkitaaba téere bi da leen di jàngal aaya yàlla yi di leen jàngal alquran muy kon alquran ak sunna wala xikmata mu jàngal leen fiq ma tax saaba yi ñëpp a jàng fiq te jànguñu laxdar yi ñëpp a ja dégg fiq te jànguñu risaala ndax pratique bi la ñu tib jàngal sallallahu alayhi wa sallam wa yuzakkihim mu di leen tazkiya jàngal leen xam-xamu tasawuf mbokk yi kon ñeent a ngi ni wa yuallimu yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim ñeenti xam-xam a ngi ni xam-xamu tazkiya xam-xamu xikma xam-xamu alkitab xam-xamu sunna yii ab julit mënu koo manqué farata la ci moom ba ci ëpp gën a njëkk mooy xam-xamu alkitab muy alquran teg ca sunna waaye teg ca fiq teg ca nag ilmu tazkiya mooy xam-xam bi lay xamal yow yaay kan di la xamal ne doo tus di la xamal ne bul xeeb nit ñi moo tax nit mën naa julli ci fiq ci tasawuf mu am zéro boo ñëwee ci jàkka ji boo jullee ba àggal rek baax na waaye boo sëlmalee xool benn waay daan ne kii de mbubam mi rek la fi indi yaa ngi ci zéro asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw xanaa ci mbub mi rek la am seetaan na la moom rek la am de parce que semaine bi moom lay indi yaa ngi ci zéro boobu yombul li lay jàngal loolu nag ruqi ko ci sa biir bi sànni ko loolu mooy ilmu taskiya mooy xam-xamu tasawuf wa yuzakkihim allahu akbar innaka yow yàlla anta al aziz yow rek yaa tedd alxakim yaa xereñ yaa xereñ ba loo def du am njumte wa man yarxu kenn du bañ doo gis kenn ku bañ an millati ibrahima ci diine ibrahima ji illa man lu dul koo xam ne safiha nafsahu dafa dofal boppam ku dofal sam xel rek yaay bañ diine ibrahima waaye diine ibrahima ji ku nite du ko bañ tabarkalla ku nite du bañ diine ibrahima wa laqad istafaynaahu tànn nañ ko moom ibrahima fi dunya ci àdduna wa innahu waat naa ne ibrahima fi l axirati bu àlaxira la min asaalihina ma ngay bokk ci ñu baax ña bi garantie kenn mënu ko am ko dul moom tabarkàlla wa laqad istafaynaahu fi dunya wa innahu fi l axirati la min asaalihina bu àlaxira fu ñu baax ñu jógee rek boo xoolee seen ci ibrahim nga ne lu ko may mu ne is ndaxte li ko may qaala lahu daf koo waxoon rabbuhu boroom aslim ommatun xaala mu ne ko aslamtu ommatuna yàlla ne na lii moo ko may yàlla daf na ko ommatul mu ne ko ommatuna li ma santaan na la neex mu ne ko lépp neex na ma waaw aslamtu ommatuna li rabbil alamina ngir borom bi ndeefi lay lisa wa wassa biha mu dénkaane ko ibrahimu ibrahim kum ko dénkoon bani i doomam ya ba muy faatu ba ibrahima faatu baat bii la leen dénkoon waaw wa yaqubu yaqubu ba muy faatu baat bii la dénkoon ay doomam mooy ommatu leen ci li yàlla santaane tabarkalla lu am solo la di dee ci mbir sa doom nekk ja lu am solo la moo tax ne ci jàkka ji sa doom ne ci ak a neex ak a neex gestu asalaamaaleykum wa rahmatullah gis sa doom mbaa nga ne allah akbar sa doom jottali c'est bon waaye ak a jafe ak a jafe waaw ni nga bëgg sa doom mel ko doomi jàmbur a koy mel ñaare wala ko ko wax waaw moo tax oustaz mbay ndeysaan ca Thiès mu ne gaa ñi dàq leen xale yi ci jàkka ji mu ne leen indi leen seeni doom ñu remplacer xale yi ma dàq leen wallaay ndeysaan yàlla ñu yàlla jàppale yaaxoba mu ne yaa baniya ey yéen samay doom inna allaha yàlla astafa lakumu diina tànnal na leen diine islaam fala tamutunna bu leen dee mukk mukk mukk illa lu dut wa antum fekk na yéen muslimuuna ummatu ngeen ci la yàlla santaane allahu akbar lii moo lay xamal ne yonent yëpp lislaam lañ doon woote yonent yëpp lislaam lañ doon woote waaye état bu mu toll nag ak na mu fay tudd ba ni mat ndax booy tabax boo tàmbalee booy mool ay mool lay tudd ah boo koy boole fondement lay tudd ngay def rek ba baa muy mat su matee nag tudd étage fa ngay tudd tudd salon wala ñoom seen yooyu tabarkàlla ah bañ ko jaxaseegul nag ciment la tuddoon moo tax diine islamique ba mu jógee ca noox bi ñëw na muy tudd rek ba muy agsi bi mu agsee ci alayhi salaatu salaam tudd al islam néeg bi mat na léegi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha astafa lakumu diin yàlla tànnal na leen diine fala tamutunna maa ngi leen di dénk bu leen dee mukk illa lu dul wa antum yéen muslimun ngeen wammatu ci li yàlla lay santaane yàlla nañ ci yàlla rey wallahi lay sant yàlla mu ne am kuntum wala da ngeen a nekkoon shuhadaa fekke is xadara kero ba nga xamee ne teewal na yaquba yaqub almawtu dee ndax fekk ngeen ba yaqub di dee yàlla mu ne ndax fekk ngeen ba yaqub di dee ñu ne ah fekke wuñ ko de mu ne loolu de jar naa fekke ginnaaw fekke wu leen ko kaay leen ma nettali leen ko yaqub daa feebar tëdd ci lal bi daa di woo doom yi ana yusuf ne maa ngi nii ana benyamin maa ngi nii ana rubil maa ngi nii wol ba ñëpp ñëw waaw ñëpp ñëw tiim ko ci lal bi mu nekk ci sukuraatu dee war a dinkaane kàddoom yi mujj waxu leen am naa ca banque ba lii waxu leen am naa kër kastoor waxu leen maa ngi ñetti oto mukk is kero daal def kero daal xaala def ne xaala dafa wax li banihi doomam ya ma taabudun lan ngeen nar a jaamu min baadi suma dee sama ginnaaw lan ngeen nar a jaamu nu ngeen nar a mel mbaa du ngeen nekk ay faqmaan